ah dama ni bisimila ku doon laajte faali ngoye ngi nii seen produit naturel xarañ 100 pour cent bio yegg si na jaaxle jeex na de produit la bu nga xamante ni ñu ngi koy defaree à base de plante teg si dama ni la amul benn effet secondaire xarañ ah. rek ci yokku kattan ak cawarte éy xarañ benn jeeg mereetu fi jëkkëram kon yow mi am jafe-jafe sa néegu sëy wooteel kaaw ci numéro yi 70

jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci médina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax tey it sàkk ko ci yéen kon ñu wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ginnaaw kon bi ñu xibaar bi fësal ne kon way juru Bijou Ngoné bu jigéen dafa wuy ci boromam xibaar boobu nag ñu ko am kon léegi léegi ginnaaw bi mu ñàkkee kon way juram bu góor yàggul dara kon ni ki tey ñàkk na way juram bu jigéen loolu nag di xibaar boo xam ne kon jot nañ ko léegi léegi mu nekk lu méttee méttee méttee métt ndax bijou ko wax xam ne gisoon nañ attachement bi nga xamante ne saa su nekk mi ngi ko doon fësal ci waajuram boobee rawatina saa su nekk liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def ba niki démb rek kon ci weeru mars mu demoon ca camp pénal ak don ak sargal jigéen yi nga xamante ne moo koo fa doon def kon niki tey jii ñàkk na yaayam muy jigéen mu nekk itam ci weer woo xam ne kon weeru euh, jigéen ñi la su ko defee kon ñu ànd ñaanal ko yàlla may ko xolu muñ daal di yëram booy juróom bu jigéen boobee euh, jéggal ko ay bàkkaaram tey lépp loo xam ne jaar-jaar la ci àddina rek euh, bu mu fi doon def rek mu réccu ko li nga xamante ne nag moom mooy cause décès ba xamaguñ ko amaguñ ci dara loo xam ne lu leer la waaye Médina TV day wéy di topp xibaar bi leneen loo xam ne amaat nañ ko ci ak yéen ñu ñëw ci turam gën a yaatu jërë ngeen jëf